comme ça, mais je pense que c'est très bien réfléchi. Non, mais c'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie. Et c'est pas la première fois que l'Assemblée aussi dit qu'il y a des décisions du moment où on jël. Mhm. Voilà. Parce que pour DPG aussi, moi, si nous suis affaire de timing. Ouais. C'est-à-dire, moi, si nous Donc, DPG, Bidal, je vais Si j'étais le président, le 13 bobu, euh, je ne j'attends le 12 ma tas ko et puis on passe à nekk ci nen vraiment le l'histoire de l'Assemblée nationale. quand même parce que moi je que tey bu ko tasee le 12 te mu le euh, PM dafa war a def DPG dinañ ko coller un peu la wax waxeet. Mhm. et loolu. ah mais à ce niveau-là donc il faut clarifier parce que beaucoup de gens pensent que président dafa bind de façon solennelle au président de l'Assemblée pour xamal ko ne DPG bi le 13 lay am. mais léegi il y même Galsen qui a vraiment été très pertinent pour nous dire que attention est-ce que nekkul le fait que gars yi jàpp le 11 ne ci la ñu war xam nga euh, conférence des présidents dañu jàppoon le président en réponse ne leen bu DPG war a amee bu waree am le 13 lay am et ça je pense que beaucoup de Sénégal n'ont pas compris ça n'ont pas compris mais parce que bu waree am mhm. c'est-à-dire que soo liiree texte soo ko liiree nii rek danga naan le treize mooy DPG loolu la président. Ah, waaw président loolu la wax. mais peut-être président man na leen wax ne DPG bu doon am warul am le onze le treize lay am. Mhm. waaw y a mhm. nuance. Mhm. et l'interprétation souvent ça fait défaut moo tax souvent say bët bu suuloo ni par la haine tu interprètes à ta faveur. mais tu lis pas en profondeur le texte. mais maintenant mon problème c'est que le fait de. dire mais lii nii ngay wax nii tey. sénégalais yi ko comprendre ah. bariwul de parce que gëmloo nañ sénégalais yi ni président dafa bind ne le treize la ñuy def déléga euh, déclaration de politique générale noonu la ko ñu bëri jàppee. Sénégal yëpp noonu lañu ko jàppee. waaw. mais comme li nga wax. Mhm. moo tax ma ne interprétation froidement DPG le treize la war a am. Mhm. et ce sont les dires ou les écrits du président. Mhm. et waxu président nag. Euh, kii la de mais il peut corriger les députés en leur disant que DPG bu waree am. le 13 lay am le mais pas le 11. ça aussi ça peut être sama sama moo tax gis nga sama gars yi nekk. sama gars yi nekk ci euh, réseau réseau bi di ah. bind. Mm-hmm. Euh, dañu xereñ waaw ah, dañu xereñ et les sénégalais en général ñu ci bëri tey dañu am benn. dañu trop en avance. et c'est ça qui pose beaucoup de problèmes aux politiciens surtout à ces néo-politiciens. comme mooy. comme kii politiciens yu bees si non du ma tudd ay tur. mais politicien yu bees yi ne dañuy ëpp mooy ñoom Thierno Bocoum ñoom Bougane dañuy juum dañuy juum dañuy juum. waaw même le l' ancien premier ministre Amadou Ba li mu def démb dafa juum. danañ ci ñëw. ci ku xam politique. mais lu tax nga ne suñu néo-politiciens yi dañuy juum. parce que lan moo tax ñoom cest à que. Euh, seen taxawaay c'est pas rationnel. Mhm. leur seul problème c'est un homme c'est Ousmane Sonko. mooy seen problème et souvent ça les da leen di pousser ñu def erreur. Mhm. c'est-à-dire que je sais pas mooy li ma wax rek. Mhm. c'est l'homme Ousmane Sonko qui dérange. et très souvent soo ko toppee rek da ngay def ay erreurs et c'est ça l'erreur aussi de Macky Sall. parce que Macky Sall a été toujours le directeur de campagne ou bien voilà. de kii de de Ousmane Sonko. donc loolu la. moo tax ma ne la ay cuune lañu ñu. ñu mhm. ko ñu bañ ko. waaw même soo gis nga tey ñiy yàgg ci politique. am ci âge yi teg ne de noppi. Mhm. parce que il faut nga xool jeu bi liir ko boo ko liiree. gars yi waroon nañ toog benn un an bu leer du ñu wax. Mhm. ñenn ñi sax ay erreur politique lañ toog deux ans du wax. mais ay analyse yu yu yu yu terre à il faut qu'on se batte kenn waxul ma jéem a wax pour nekk opposant bi di wax chef de l'opposition tu es en train de te tuer mhm. parce que Sénégal moo tollootul foofu mhm. Sénégal fi mu tey beneen opposition la ñuy xaar opposition force de proposition mhm. une opposition constructive waaw ah, mais Vincent Vincent euh, sama benn xarit yi euh, euh, juriste la Vincent bu fekkee ni disponible nga mun nañ la jël ci ci biir émission bi nga indil ñu quelques leeral ci disposition yi dispositif yi nga xam ne ñoo nekk foofu mais euh, nee nga suñu politiciens yi euh, gars yi dañ leen raw trop dañ leen raw trop parce que population bi dafa nekk en avance ci ni ñuy transcender les question politique mm-hmm. fii nekk suñu politiciens yi li may gis mooy ay attaques personnelles rek ci lañ nekk mais loolu la ñu mën a def c'est-à-dire que dañu liirul aujourd'hui ñu ngi naan Sénégal mm-hmm. soixante quinze pour cent ay jeunes lañ. Mhm. mais tey gis nga yaa ngi wax sànq conseil des ministre waaw suñu paree suba suba nga gis jeunes yi ñu décortiquer conseil des ministres tas ko. Mhm. loolu war na leen yee ci lu bari. Mhm. donc soo bëggee contrer loolu il faut ngay indi loo xam ne jeunes bi da si gis boppam. xaw ma ndax comprendre fi may waxee. waaw. jeunesse bi tey ñoo téye lii. ñu bëgg ko ñu bañ ko. Mhm. gis nga ni mu métti woon. jeunesse dañu téye rek ba def changement. Mhm. te ñoo ko encadré actuellement. parce que bu du woon loolu tey du ñu focus yaa ngi koy wax sànq bi ñuy waxtaan or antenne. waaw gis nga tey yaa ngi wax fa nga dëkk sax jeunes yi ni ñu. taxawee ci wàllu politique ni ñu ko téye. waaye à Gandiaye donc tey yow bu fekkee ne opposant nga bëgg a doon. Mhm. ah sooy def sortie da ngay def sorti boo xam ne tey jeunesse yi dañ ko mën a avalé mais doo génne ay sorties de personne ay sorties yoo xam ne amul sens. boobaa dangay ngay gën a enfoncer sa bopp. waaw moo tax de ce moo tax de booy ku ci def sorti ba pare booy ñooy jël sa ay kàddu di ko ironiser ci. mais plateforme yi. parce ah. que da nga yàkkamti wax. te dara warlu ko mooy que danga nga da nga bëgg a contrer un homme. xoolee ay affaire sol na fii mbaxane solul fii mbaxane su mi na dàllam fii. gàddu na saak fii fii mhm. gàddu na saak fii. coquette yi fii la jaar et cetera. loolu amul sens. nit ñi mm. duñ ko soxla soxlaa ñu loolu. Mm-hmm. wala sooy def sorti nga def sorti technique. Mm-hmm. par exemple li ñu génne nii man su doon man kat lii laay proposé. nga mm-hmm. indi loo xam ne dafay jëlee loolu teg fi lu gën a ñoŋ. boobaa nit ñi nag dañuy commencé di la bàyyi xel. mais nañu di dëgg rek aujourd'hui qu'on le veuille pas il y a pas une opposition. y' a pas une opposition. y' pas une opposition li fi nekk nag ñoom Thierno Bokk. ñoom Bouga nag des euh, des de galerie. Hmm. non non y' a pas une opposition sérieusement parlé. alors euh, Maria Pastef Paris euh, là elle me dit le 13 parce que le président de l'Assemblée nationale voulait violer la loi en fixant euh, la DPG. le 11 euh, le 11. et pourquoi le 11. pourquoi le 11. pour obliger Ousmane Sonko à venir faire. cette DPG. Mmh. Et empêcher le président de dissoudre l'Assemblée parce que le délai de rigueur, c'était le 12, c'est le 12. Mhm. Mhm. ils sont dans la politique politicienne. le président de l'Assemblée même ñoom conférence des présidents là. Mhm. bureau président yi ils sont dans la politique politicienne. déggoo ma de l'histoire se résume le 11 le et le 13. le 11 c'est avant. président di dissoluer nañ ko choisir. le treize. c' est après et boobu président ku nekk ni nga koy liire la majeure partie ils ont li de manière transversale jàpp ne le treize la ñuy tas assemblée. Hmm. Euh, waaw le douze lañ koy tas le treize DPG du am. Hmm. quelqu'un d'autre pour pour le lire en disant que le treize bi président dafa leen bëgg a wane leen onze boobu. Hmm. c' est pas valable c' le treize mooy la bonne. à la alors euh, ñu des ba tey euh, ci. Euh,